dina boo waree dog waaye tëyoo ko da nga koo fàtte woon rek ni ci koor nga nekk doo ci am bàkkaar te fay rek moo la cee war ba tey boo dawoon ci weeru koor waaye ngant tax ni ki dangaa tawat mënu ko boole koor nga dog dal di ca nekk ak am na sax foo xam ne moom dogg du mën a ñàkk mooy bu la wóoree ni boo duggul faatu dogg day wax lu wóoree ni ba tey boo dugut am sa cër bu laatu ci yow mel ni sa bët dana gumba mbaa réwe noonu te war nga dog koor gi ndax sàmm sa bopp sa bakkan ak say cër lu war na ci yow ba tey nag bu mettee waaye àggul ci lu lay gaañ waaye teewul métti na rek mën ngaa daal dog yow may na la nga dog ba noppi rek fay yem fay fay rek moo la ci war te boo ñu tukki ci yoru koor tukki boo xam ne mat na doxu wàññi donte xam nga ne sax doo sonn ci tukki bi da nga teel a àgg fa nga jëm itam te te bu la neexee bañ a woor dene nga bàyyi ko fii ci oto yi dem ci xaaju guddi Ndakaaru ci jamonoy koor gi xam nga da nga àgg Ndakaaru bu teel te demul ci ab sedd lay doon Ndakaaru sedd sedd sedd bu sedd bu métti ba fi fekk kon xam nga du métti def dara waaye du tee sañ ngaa bañ a woor ngir loolu nag waaye day aajowoo nga tàmbali tukki ba balaa fajar a fenk ñu ngay dem ci oto yi dem ci njëkk fajar di fenk waaw te it naka jëkk nga jàpp na bañ a woor waaye boo xasee jàpp woor moom boo xas tàmbali koor gi moom bala ngaa fajar ci yoon yi da ngay dem a dem ba am ngànt ni ki mu metti boo dugul gaañu mbaa yooyu mooy tax nga sañ a dog waaye ndeg moom fajar xas na fenk taw koor nga jàpp naka jëkk ba yaa ngi ci koor gi moom doo dem ba ci yoon yi rek nga ne man kat ci tukki laa nekk daal jékki-jékki dog te da ngay am ngànt njëkk nag loolu jot la loolu jotee rek nga mën a dog ci yooyu jamono day tax nga dugg daal mooy ci guddi bi nga yéen woon bañ a woor te tàmbali nga tukki bi laata fenn fenk waaw kooku moom kon yaa ngi ci bañ a woor donte xam nga ne du doo sonn it noonu wax misaal ci Ndakaaru moom mën ngaa bañ a woor te ndegam mën ngaa woor doo ci sonn moom nga war benn yoon tàyyi ci fayan te moonu gënal kee da ngay tukki ci koor bi tukki boo xam ne matul doxu wàññi te da nga waxoon léegi mat doxu wàññi doxu wàññi am ñu ko tolloole surtout am douze kilomètres am ñu ko tolloole quatre-vingts quatre-vingt-trois jëm noonu jëm kaw diggante boobu daal lay toll moom nag biir dañu tukki matul loolu waaye daa jé daa dégg rek ñu ne kuy tukki ci koor mën ngaa bañ a woor ba loolu tax na mu bañ a woor kon kenn ko alamaan dañuy jàpp ne dëgër bopp ak ni ñu yàlla tax ko bañ a woor daa defoon ne sañ na ko kon dañ ko bàyyi rek mu fay te bañ koo teg benn alamaan maanaam koo xam ne ba mu dog ci ramadaan dëgër bopp ak ni ñu yàlla taxut dafaal fi mu ko suuf ci suuf yaay bu wóor bi mu defee ne rek defee na ne mën na koo tax a bañ a woor maanaam daal daa bañ a woor ngir defee ne ngant sàngam may na ko bañ a woor ndekete yooyu moom kat waroon naa woor koy du tax ñu teg ko benn alamaan fay rek moo ko cee wax ndax moom dëgër bopp tax koo def loola taawil mooy jàpp ne nangam sañ naa ko dafa am nag ak taawil al qarib maanaam taawil gu jege mooy koo xam ne boroom taawil gi daa wóoru ci sabab su wér a wér nga tax ñu naa ak taawil al qaribu mastanada saaxibuhu li sababin mawjudin des na ko misaale nag koo xam ne daa juubu maanaam daa juum ci koor gi lekk mbaa mu naan jàpp ne nag léegi suñ naaw yi rek lekk ak naan ndax day fay doom fekk moom bu juuboo xam nga daa war a jàpp bañ a lekk bañ a naan bu defee ne moom nag bu xasee juubu rek mën naa lekk mën naa naan wéy kooku bu lekkee naan wéy du tax kenn alamaan ko mbaa mu amee woon janaaba yéex a sangu ba gannaaw fajar la door a sangu defe ne kon nag moom bu wooree itam du wér ba loolu tee ko woor mbaa bu muy xëdd fajar daa jege mu defe ne daal ndegam bu muy xëdd fajar jege na noonu daal bu wooree itam koor ga du wér ba tee ko woor mbaa mu ñibbisi ci guddi gi jàpp ne suba am na sañ-sañu bañ a woor mbaa muy tukki tukki boo xam ne matul doxu wàññi tuddoon nañ ko léegi sax mu defe ne daal sañ naa bañ a woor mbaa mu gis ceru teel korite ci bëccëg maanaam mu xaar bi bëccëg bi ñu xool seen weeru korite bi bu ko dañuy jàpp ne loolu ñu seen guddi génn jëm moom moom weer wi feeñ mu jàpp ne nag léegi dañuy moomale feeñu weer wi guddi génn weesu nga xam ne kon bëccëg bii du bëccëgu woor ba tax mu daal doog bañ a woor yooyu yëpp dañuy jàpp ne taawil gu jege la maanaam borom taawil gi am na saw su wóor suñu sukkandiku yooyu yëpp du tax alamaan war ko ca ay rek moo ko cay wax loolu nag wute naag ak tawilu albaidu tawil gu sori mooy goo xam ne lam yastanid saaxibuhoo li sababin mawjudin maanaam amul benn sabab bu wóor bu mu sukkandiku kooku nag moom bu doge itam ngir loola day fay ba noppi def kafaara boole ja niki moom teg na bëtam ci weeru koor gi mu wóor ko ne moom weer yi moom fay na nattaliwu ko ba mu ko waxee nag àttikat ba ak mbooloo mi nanguwuñ ko mu ne ah kon ne ma duma ci woorante ndegam wax naa ko te nanguwuñ ko rek caal jàpp ne kon sañ naa bañ a woor kooku bu wóor des na ko alamaan mbaa mu ne tey du ma woor ndax bis ne tey laa daan sibburu mbaa bis ne tey laa daan gis deret rek daal sukkandikoo loola bañ a woor kooku bu demoon ba ca bis ba ca bëccëg ba na mu ko jàppe woon sibburu sa ñëw mbaa deret di ñëw bu dee jigéen nit du te rek moom mu war a fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci rawante na nag nam jàppe woon sibburu sa noonu lay ñëwee ñëwewu na mbaa nam jàppe woon deret ji noonu lay ñëwee farul ñëw sax far wala boog mu nàmpatal rek daal ne ah da nga xas naa nàmpatal day moom addis ba nee na woon ku nàmpatal sa koor dog na daal sukkandikoo ca loola lekk naa ni wéy kooku du tee mu fay ba noppi ñu alamaan ko wala mu jëw rek te jëw ñu koy niroo leen lekk yàpp te nga jëw mu daal jàpp ne kon lekk na kon moom dog na kooram daal tàmbalee lekk ka naan kooku du tee mu fay ba noppi ñu alamaan ko ba tey bu fekkee da ko wóor ne moom ci bëccëg bi weeri feeñal na biig nga xam ne kon daa war a bàyyi bañ a lekk bañ a naan ndax sàmm ormay koor gi moom nag bu tey ko tayaatoo ko teewul rek muy lekk ak naan kooku ba tey day fay ba noppi ñu alamaan ko nii ñu ko misaale nag boroom Muxtasar Xaliil moo ko misaale noonu waaye da ci am yoo xam ne sukkandikoo wuñ ci ay waxam mel ne kookee nga xam ne daa nàmpatalu defe woon ne sañ naa bañ a woor kooko wax ji gën a wóor mooy kafaar du ko war fay rek moo koy war kon jàppal boobu nga boole ca itam ka nga xam ne ba muy xëdd fajar daa jege fenk rek waaye fajar fenkagut xam nga kooko dane woon fay rek ko koy war waaye alamaan du ko war jàppal ne kooko wax ji gën a wóor mooy faaw alamaan war ko ndax xam nga ne loolu moom fajar daa jege fenk dong waaye fenkut bu daal jàpp ne rek mën naa bañ a woor kooku alamaan da koy war moom ndax tawilam googu tegu ko fenn fu wóor mu wuteeg nag koo xam ne bu mu xëdd boobu moom fajar daa fenk mu jàpp ne ne kon léegi koor gi moom jeex na bu wooree itam du baax mu jàpp ne kon mën naa bañ a woor lekk rek naan te xam nga bu dee ramadaan moom daa war a ormal bis bi bañ a lekk bañ a naan kooku wax ji gën a wóor mooy fay rek moo koy war waaye alamaan du ko war ki alamaan di war kay mooy ki nga xam ne dafa war ba noppi tey ko daal lekk mbaa mu naan mbaa mu joteeg ka muy séel ci misaal muy góor gi muy jigéen ja mu tey ko joteeg moom ci koor gi waaw kay kooku moom moo war a fay ba nag boole ci fay alamaan nag boole ci maanaam xas kafaara te anam yu bokkut waaye bañ bañ ci gënal ci yoonu Maalik mooy bu dogee ci weeru koor te tey ko bañ ne war naa def alamaan na leer ay miskiin juróom benn fukki miskiin kenn ku ne mu jox la mudd mu jëlee bu war a sori ak liibar am nañu koy ëppale liibar nag waaye liibar mel na ne moom digg doomu na ba tey ne mën nga ne koo xam ne ñaari loxoom taxu koo rëy taxu koo tuut daa digg doomu bu ko defee moom fees te tàllu ko bënk ko ba tey loolu may sa koy jàpp mu du waaye mu ne ak liibar daal moom yàlla na ca maanaam bu dogee ci weeru ko fay ko ñetti xeeti alamaan la léeg-léeg gi ñu wees woon léegi moo ci gën waaye bu ko neexee jamonoy jaam amee mu goreelu jaam muy alamaan ba tey bu ko neexee mu war yaari weer yoo xam ne susaloo boobu nag mu ci gën a métti yaari weer yi moom daa war a susaloo nga xam ne bu fekkoon ñaari fan la war a fay bu fekkoon ne ñaari fan la am alamaan te war ay weer day war yaari weer mu susaloo mu dellu waraat yeneen ñaari weer ñu susaloo bu ko neexee bu jeexal yaari weer yam nopp lu ba mu tàmbali waaye weer yi ci des waaye yaari yi moom daa war a susaloo moom bu dee ay fan yu bari te muy woor it noonu lay def benn fan bu ne ñaari weer moom daa war a susaloo ku amee woon bor ci weeru koor ba nga koy fay nag nga dog ko te tey ko koy jëmmi fay ga rek mooy yàqu waaye kenn du wax ne alamaan war na la ca dañoo wax ne bu fekkee daa woor ba noppi nag lépp bëccëg ba mu far ko xëm mbaa la ëpp ca bëccëg ba da koo xëm kon moom bis boobu faaw da koy fay waaye koor ga du doy bu fekkee nag genn wàllu bëccëg ba rekk la xëm mbaa sax lu matul genn wàll ga te it waxtoo fajar di bëgg a fenk àndoon naag sagoom kon dal nay baax googa koor doy na loolu weesu woon na ko maanaam bu fekkee ne fa doon xam bu dee ci wàllu julli moom ba mu ximmee la ñu seet ba xam la des ci waxtu wa laab am ci baraka xaj na fa am déet su fekkee loolu xaj na fa julli ga war ko bu fekkee loolu xaju fa julli ga du ko war nee na nag saa yoo wooree na nga sàmm say cër bu baax a baax rawante na saw làmmiñ ndax làmmiñ moom dañoo wax ne cër yëpp buñ xëyee dañuy xëy di ko jàmbat naa ko ay làmmiñ yow mi daal boo jubee rek nu jub boo dëngee rek nu dëng ay waa ji fexeel ba jub te xam nga dëgg la mooy sax moom saa yu nekk la ko yàllay bañ waaye nag rawante na ci weeru koor ndax xam nga ak mooy dana gën a rëyu ci béréb sàngam ba ci jamono sàngam weeru koor na daa màgg lool lool mooy ci yàlla day rëy lool lool moo tax mu ne kon ku woor daal war naa góorgóorlu sori lépp li xeetu mooy xam ay cëram bu baax a baax lépp lu yàlla bëgg ci weeru koor ci bari xeetu jaamu yàlla yi di ci jàng alxuraan ak tudd yàlla ak saraxeek yépp rek nga di ko bari ngir yàlla ci seen tuyaaba nee na ku war nag muy muy góor muy jigéen na moytoo joteeg ka nga xam ne moom lay séyal ndax jëmi jote gi moom lu araam la te day yàq koor ga ba noppi nag alamaan warte ndegam moo ko coobarewu jëmi jënjoo gi laalante ci yaram nag wala féerante gi dañuy seet moom daañu ko àtt léegi bu fekkee ne wëru ko ne bu ko defee itam du tax dara génn ci moom mën nañ koy suivre yam ci bu fekkee du ko defee dara mën naa génn nag mu daal di araam bu ko defee ba dara génn itam daañu ko leeral lu ci àtte ba daa wax ne nag bu wooree nag ba jant bi soo kon digganteem ak fajar di fenk moom sañ naa lekk sañ naa naan sañ naa jote sañ naa bànneexu ci yaram digganteem ak kamu seelu yépp waaye nag ba mu des bu fekkee day kooru lixtikaaf xam nga kuy lixtikaaf moom ku dégg ci ñoo ci yemoo du sañ a joteeg te muy séel du sañ a bànneexu ci moom itam ci laalante ci yaram ba tey nga boole ci bu dee woor kafaar ak zihaar ba tey kooku noonu la wala boog fekk sax mu armal aj xam nga bu fekkee mu armal aj itam armal nga mooy tax du saña jote ak nga xam ni moom lay séel waaye bu dee kooru kese daal moom mel ni kooru ramadaan kene te leneen raxu ca bu jant bi xasee fa rek sañ naa jote ak nga xam ne moom lay séel sañ naa laalanteeg moom bànneexu ci wàllu yaram te du wàññi dara lekk ak naan nag moom du wàññi dara moom bu jant bi xasee so rek ba tera fajar bi fenk mën nay lekk mën nay naan te du wàññi dara dane nag bu fekkee ci guddi ga da ca amee woon janaaba joo xam ne ak jotee ko waral mu yéenee woor nag waaye mu yéex a sangu ba far fajar fenk jëm suba ko it koor ga dara du ca sikk rawante na kon nag mu amee woon janaaba joo xam ne gént rek moo ko waral bu yéex koo sangu ba fajar fenk jëm suba loolu lépp du wàññi dara ca koor ga teewul nag mu sangu woon ci guddi ga balaa fajar fenk moom moo gën te it bu sanguwul ba fajar fenk na daal di gaaw sangu joox farate suba gi bala ko waxtu waa raw ndax bu ko waxtu waa rawee rek mu daal doon bakkaar bu mag a mag nee na koo xam ne dafa doon laalante jigéen jorgonte ci yaram baa foonante ba mu si génn ci moom fekk ba woor kon des ko alamaan waaye koor ga dog na waaw dana ko fay te nee nañu xalaat ga ak xool ga it noonu la moo xam daa yàggal xalaat ba mbaa yàggal xool ba mbaa yàggalu ko ñoo ci yemoo bu fekkee mësi rek génn mësi moom fay rek lay waral waaye du waral benn yoon alamaan xam nga dañoo waxoon ne boo wooree te wóoru la ba xam boo jorgontee ci yaram ak te ngay seen ci misaal danga tax dara génnam déet kon yow doo ko sañ léegi nag ba demee def ko nag léegi ba xam naa ni génn nag kon nga boole yaaru fay ak alamaan war la ca dañoo wax ne su fekkee la génne mën yi mu moom mooy fóon wala jonjoo ci yaram wala foxante moom faaw rek day fay def kafaara boole ci bu des nag bu fekkee da ko tayoon di xool wala muy xalaat ba mën yu génn kon nee nañu bala caa kafaara war moom mu yàggal xool ba ak xalaat ba ndegam xam na ne moom bu ma saa yàggal ak xoolam ba ak xalaatam mën yu génn te noppi teewul mu tey ko yàggal xool ba ak xalaat ba bu mën yu génn kon ba tey day fay ñu alamaan ko boole ci koo xam ne nag moom la mu xaman ci boppam mooy su ma saa yàggal ab xalaatam ci googu wàll diggante góor ak jigéen mbaa ab xoolam itam du tax dara génn bi yoon nag moom ba mu ko defee far dara génn ca la ñu wute ba xam ndax kafaara war na ko wala waru ko al la xam yi moom la mu gën a jàpp mooy du ko war